asalaamaaleykum monsieur le ministre ñu lay nuyu de la sant de nuyu sa délégation yu nga ànd yëpp te ñu ngi kontaan ci seen teewaay fii tey ngeen ñëw ñëw fii teew fii tey seet suñ daral bi nga xam ne nii mu nekk daral bi nga xam ne bu am solo si Sénégal fii kon nag tey nag am nañ kontaan am nañ mbégte bu rëy tey si Sénégal laay wax sax du ma wax si région Kaffrine bi département Koungheul kon monsieur le ministre Samba Ndiobène Ka am nga njaaraama ñu lay nuyu alhamdulilah foora bi gis ngeen ko ni rafete xam naa ne mën naa wax Sénégal maa ci dakka foora tey maa ngi ciy gërëm waa PRAPSI ñoom it seen jéego yi baax nañ lool def nañ lépp ba mu rafet. tey nag monsieur le ministre ñu amaat mbégte lool. di leen dalalaat fii yàlla def yow it nga ñëw eh, ñu am ci nag ñu am ñu am ci nag mbégte bu rëy rëy rëy te mbégte boobu tey monsieur le ministre ma yëgal la ne tey ku ñëw Missirah Wadène gi gis tey li fi nekk ci ay jur tey incha allah am naa yaakaar ne da nga am fierte bu mag tey assuré sénégalais yi ne incha allah bu ñu gënee ubbi buntu yi xar dana doy ci kattanu yàlla waa PARAPS parce que tey gis nga marché marché bi nga xamante ne nii collecté nañ ñu ko mu dem ci trois hectares tey gis ngeen ñu ko doon inauguré ñu amoon ci kontaan trop ndax biñ ko yëkkatee bees amoon nañu waxoon ne Missirah mënul am loolu kon tey bu ñu demee ba tey ministre yi ñëw tey ñu di ko inauguré kon vraiment waa PARAPS ñu ngi leen di sant di leen gërëm. pour ñëwaat rek ci li nga xam ne moom mooy daral bi ñu inauguré tey. daral bi man nani président de la république bi mu jëlee réew mi bokk na ci liko wa misira Missirah ñaan nee ko ñun am ñu marché marché bi nekkatul marché national mais marché sous régional kon ci wàll bobu président de la république soxla nañu nga jàppale ñu ñu man am daral Yalla def lolu non ñu ko ñaanoon à travers ben programme bu ñu nane PRAPS te mu nekk ministère élevage mu financer marché bi luy tolok 93 millions ak lu top kon loolu mënuñ lu dul rafetlu ko waaye du ñu yem nag ci rafetlu ko dañuy ñaax encore euh, ñi nga xam ne ñoom la yàlla def tey ci boppu dëkk bi mais surtout ci boppu daral boobu pour que ñu yokk Pastef surtout ci gestion bi parce que suñu ñu nee gestion rek euh, bëgg nañ ci li ñu naan transparence mooy ña ko séq mën a fexe ba li nga xam ne moom la ñëpp bokk kenn ku ne mën caa gis sa bopp su loolu weesoo également lii nii xam na investissement bi tolloog téeméeri million presque loolu du caaxaan kon surtout que gestion bi jëf-jëf ji ñu defar ko ba mu mel ni mu war a mel incha taala